di doo bëggul làmb tey président Macky Sall su jëlee xaalis bu bare 32 milliards arène arène nationale li woon na ñu ne dina dina recevoir promoteur yi depuis depuis 2016 ba tey recevoir loolu yëpp nag am na jafe-jafe yi nga xam ne ñu ci réew ñun tey yi nii ñuy daaw doxale xale yi nekk topp suñu ginnaaw ñoo ëpp junni yoon gis nga lii ginnaaw ni ay téléphone dañ lañu woote ñu ñëw nii woo tey mbër borom lañu topp borom dañu woo woo promoteur woo nangam yooyu parce que jàmm lañu woote jàmm moom moo tax ñu woote quelques euh, personnes si ay euh, le préfet de Dakar laay moom na xoolaat li parce que tey su dee tey CNG ñëw na autorisé gars yi jox leen ay date c'est parce que am na mu ko wéer si ministère la ko wéer ministère bi depuis le 5 la ñu waxoon autorisé nañu. mais manifestation yi am na 5 ba yëpp nañu annulé te yooyu yëpp xaalis xaalis promoteur yaa nga ko mais fan lañ jëm ak ñëw à la raison depuis la fois ba fa gars yi demee recevoir leen loolu oh, c'est passé yow dañu war a xam dañ leen dégg dañ leen dégg tey nit ñi bu ñu déplacé woo ñëw ci yow non da nga leen di recevoir toog waxtaan nga xam ne moom mooy li am mais lettoo leen firiwoo firiwoo leen ñun xamuñu fan lañ jëm xamuñu ban tànk la ñuy teg xamuñu ban tànk lu tax stade bi bi ba tey ñu koy tere ñu la qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le problème il faut que ñu ñëw à la xam ne leen dénk may ñu leen ko jaay ñu leen ko lii ñu yore ñoom ñëpp lañ leen ko dégg ñun ñëpp ñoo ko bokk askan bi ñoo ko moom donc il faut ñu respecter suñu biir voilà les les promoteurs nag loolu moom mooy suñu tànk moom mooy que arène bi ni ñu ñu xool nan la ñu organiser waat ba xool nan la ñuy dabuwaate ñoom pour récupérer waat li nga xam ne perte nañ seen seen xaalis donc ce qui veut dire que la ñuy waxal directement parce que réew mi de dafa mel ne tey il faut nga yëngal pour pour pour mën am am satisfaction te loolu nag doxalul réew réew jàmm koy doxal jàmm ak salaam jàmm ak salaam nag mi ngi commencé si lenn tey état ñëw dénk la dara yow mi ñuy jox jox la ko lu ubbeeku bépp ma jox leen benn exemple man tëgg naa benn face to bi nga xam ne maa ngi koy tëggee woon Lac mais le sous-préfet mais dafa ñëw collaborer ak Ndiour comme c'est pas possible du ma fu ma toog dama koy wax et puis genre yooyu la ñu soxla xam ne lii jeunesse bi moo ko moom nañ leen jàppale ci loolu tey xale yi nekk si la autour de la lutte bu ñu leen bàyyoon ñu wër dem lu ñu muy def agression bi wàññeekuwul lu nekk ngeen daan dëcc avant leen ba dem mais tey bu ñu demee ba fii aussi même chose ñu def ba am problème mu stade ñoom ñëpp ñëpp war a euh, jàpp ci loolu xam ne ah promoteur yi kat li ñu bëgg rek moom mooy ñu respecté ñu jox ñu cër je euh, euh, parce que man li ma ci gën a métti li ma ko naan la depuis le moom mooy ñàkk respect bi ñuy ñàkk respecté CNG. ñun CNG bu ko tuutal ñun nga tuutal parce que CNG tey bu tey ñoom dañ koy ñëw jox ko làmb ji mu yore làmb ji mu am fitu bind ay kayit notifié ko promoteur yor dañuy senewu bu ñu la waxee dëggal dañoo senewu parce que bu ñu jëlee tey autorisé la yow nga jël sa alal ñu leer la tey sa alal yàqu na mais ñoom ñu xam ne ñoom ñii kat non ba vraiment ñoom ñoo la autorisé lii mais dañu dañu wax parce que état ci nekkee am na nga xam ne ko wax loolu nag ñun ñu nekk ci biti ñoom ñu ma ko a wax donc nañu xoolaat bu baax li ñuy def lan la. am na solo jërëjëf léegi du jubal ci biir Pao. waa ji li muy traité yëpp ñu ngi ko mën a ñaanal ñu doon yëpp ndax di leen sant di wax ne ñun dañoo ñëw ay citoyen la ñu am suñu alal yàlla di ko mën a dem ubbi ay magasin toog fa di jaay wala di importé dañuy dañoo jël ñu ko suturaale ñu ko jox seen loolu bu ñu nag Sénégal yëpp ci seen bopp ndax doomu jaay jaay la doomu jaay yaakaar ñëpp kon tey ñun suñu dee góorgóorlu góorgóorlu boobu ñu ngi ñoo xaar dara ci état ba état mënut a dara suñu waa làmb suñu président Macky Sall dafa koy làmb ndax su ma nee làmb defal bi ñu 32 milliards su ma juumee defal nañu ko 32 milliards mais nag dafa am ñoom dañuy def ay dafa ñu ay reportage te ñun jox ko mbay daal dañuy choisir ñu ñu ndax ci chômage bi ñu daanaka ñu daanaka bëri man nañu dogal la mën nañu daanaka waaye bi ñu ko defee même pas une semaine ñu organiser ay ngeew muy am ci ministre de développement te defal guñ ko chaque weekend ngeen xam ni ñu jógee laa ñu jógee seen ngeen ku ne xam ne ne ak laa mu jógee xëyoo ñu ndax public mooy ñëw ñu jël ñu parce que dem na ñu xam ne tey ngeen bi yaakaar naa suñu dem mooy budget ngeen budget bi yëpp moo présent loolu la lamb bi amul benn lamb bi def léegi 15 millions wala mu doon wala mu doon ñun ñu jël seen moyens yooyu def ko def ko ay moyens ay Sénégalais ñu dem ba daaw ko ñu bëre ñu ne fekk ne buñ ko dafa soxla ne CNG moo ko jëndee pour ñu dëddu ndax CNG ministre des sports moo ko jox aval ministre des sports moo ko jox ne ak ñu ko ñu ko joxe ne aval ndax nag bu ñu liggéey bu ñu liggéey bi dafa ñu liggéey mooy boo xamee daal sa kàddu saa ne boo koy continué mais tey ñu mënu ko gàcce la rek ministre des sports joxe kàddu CNG CNG joxoo ko kàddu ñoo lay ñëw ñëpp seen kàddu ñu ko naan benn kàddu boo xam ne daal mu préfet Dakar préfet Dakar ñun li ñu gën a métti ci mbir mooy yaakaar naa ay nit ñu amee xew-xew am programme lu ma ne li ma ko war a doon quatre am dañu war a am fii ci biir quatre moo ni les quatre jours la yëpp quatre-vingts litres waroon bu ci ne minimum jàppal ne def nañ ci quinze millions wala lu ko boo calculé loolu ñaata lañ xaalis mbëri def li ñu war a def yëpp def seen ay regroupement ñuy toog seen ak ñuy def seen lépp ñu annulé ko ba pare annulation bi amul fenn firnde bu war a ne promoteur bi yow lii tax ñu annulé sànni te ñu jot daal lii moo te bi moom dundu nañu ñu yóbbu leeb bi ñu dem ba bureau bi nu mu ñu recevoir te moo ñu bindoo leeb ñuy saluer commandant central ndax ñu demee ci moom daf ñu accueillir dalal ñu dalal suñu xel wàcce suñu tempérament. xamal nañu ne su ngeen amee autorisation amul benn problème su ngeen ñëwee ñu accès événement yi yaakaar naa loolu la ñuy xaar ci kilifa loolu la ñuy xaar ci responsable mais lu ñu xaar keneen ci préfet Dakar ndax nag préfet Dakar day jaaxaat buñ la dénkee war ngaa mën a jege ndaw ndax nag su ma juumul premier ministre bi koy fas daf ne président Macky Sall daf ne naa fexe ba ministre bi jege ndaw ñi jege population bi population nag mënut a weesu ay ndaw ndax buñ ko jegee Sénégal ndaw ñi ñu ëpp mag ñi kon tey jàpp naa ne ma ndaw ñi dafa soxal dafa soxal président de la République ñun nag waxuñoo ministre waxuñoo préfet président Macky Sall la ñu waxal xam nañ fi ko réew mi ak ni ko réew mi ñooy na xam ne njabootu làmb mu ngi leen di sukkandikuloo sukkandiku nekk ñu ngi leen di fekkloo ay millions yu jeex ci entre ministre préfet Dakar ministre des sports préfet Dakar ndax tey lu ñu dal ñooñu ko def ndax dañ ñooñu war a jox suñuy këyit autorisation pour ñu dëgg suñuy làmb autorisé wuñu lu mat quatre naa loolu président Macky Sall xaaru ko ci réew mi ndax nag réew mi ndax réew mi réew ay gaal ak woon lépp a ngi woon ak ay fam métti lépp métti yàlla na ko ñu dégg ñu ne combat am na ndaw ñi xaatuñ leen lu dem ca làmb ja ñu ngi defal di def ñu ngi def li ñu ngi kon yaakaar naa bi réew mi toll président Macky Sall li avantage am ak li bi war a ci sadi sadi la incha allahu rabbi su fekkee ne amuñu luñ bëgg vendredi prochain. Ligue nationale moom daal yëpp dañ leen woo génn sànni ñu xeer saa daaw ñu xas ñu xam ne nii yooyu xam ne ñu ay ndax li wax dafa dépassé ministre. ndax nag xam nañ ne ministre yi mënuñu régler suñu problème ndax buñ commencé régler régler ko comme nag ñun gis na ne fi ñu toll président Macky di ñëw bu woote su fekkee solution bi ñu amul dinañ woote monde la nit yëpp képp ku mu intéressé ndax nag képp ku ñu intéressé li ñuy wax Arène Nationale lay joxante rendez-vous dinañ wan réew mi suñu naqari ci jàmm ak salaam ci dal ak teey waaye nag li ñëpp man ñun mën nañ ko waaye nag defuñu ko dañ leen a woo ci njëkk ak teranga wax ak président mu wax ak ñi mu fi teg ñu respecté waat noonu la lutte làmb considéré wuñu ko te moom jiitu réew mi ne pourtant considéré na ko ndax tabaxal nañu fii 30 milliards kon moom li ko war mu ngi kon nag ñi nga xam ne ñoo ko wër dañ ko war a mais jafe-jafe bu mu nekk ñi ko wër ñoo ko teg ndax jigéen ñu askan wi dañu ngi jël li askan wi yor boole koog li ñu yor sax ñoo teg ndax nag bu fekkee ne promoteur dañoo jënd ay millions financé ko nga arrêté seen programme yëpp tegoo ko fenn fundoo yoxol benn këyit yaakaar naa yaa ngi jël li ñu yor yaa ngi boole di leen xaj fay li ñuy wax mooy vendredi prochain incha allahu rabbi su fekkee li ñu saafara saafara wul incha allahu rabbi dañu woote benn marché bu mag buntu àll defe naa ci jaam ak salaam daal la ñu wax ne la ñuy wax di wax ñëpp